jataayu koor di ñu ci fi waxtaane lépp lu aju ci attay koor te yitteel ab jullit ñu ngi sant ak ak jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci internet bi ak di safoo émission bi ñuy commentaire ak ñëpp rek xam naa dañuy bañ a lim waaye ñun ñëpp gis nañ leen euh, dañuy wax ne ku lim juum waaye doo juum ku lim danga dul matal moo tax ñëpp daal ñu ngi leen di jaajëfal ak di leen euh, nuyu bu baax macha allah ak mbokki jullit yi fu ñu mënti nekk ñuy topp yeneen programme yi tamit ci Daara Koki bi nga xam ne lépp rek ci liggéeyu daara ji la aju tey ñu ngi ñëw ci suñu ñeenteelu jotaay euh, nara taxaw ci benn poñ rek muy lu aju ci farata yi ak sunna yi. Euh, koor comme niñ leen ko waxee dafa am atte yu bari yu ci aju li nga xam ne moo aju ci farata yi nag waxoon nañ fi euh, suñu jotaayu dem bi euh, li nga xam ne jullit bi nga xam ne war naa woor nga xam ne bu weer wi teroo kan moo war a woor kooku nag dafa am ay farata yoo xam ne nii moo ko ci topp ci koor googu ak ay sunna sunna nag àggul ci farata waaye day mottali koor gi farata yi bi ci njëkk mooy yéene ndax subhaanahu wa dafa wax ni shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal quran fa man shahida minkum shahra falyasum képp koo xam ne nii sart yi ñu waxoon daje na ci yow weer wi teru fekk la fi eh, na nga weer nanga woor weer wi woor bi nag nan lañ koy tàmbalee woor mooy yéene kon yéene mooy farata bi njëkk mooy fa nga xamee ne séentu nañ ba gis weer wi fas yéene woor suba incha allahu foofu la yéene di tàmbalee benn yéene nag doy na pour weer wi yëpp yéene nag du looy wax ci sa làmmiñ waaye looy fas ci sa xol la nga fas yéene woor weer wi yëpp benn yéene boobu bu fekkee ne def nga ko ci guddi googu doy na mën ngaa bañ a yéenewaat ci yeneen guddi yi ci des donte yenn boroom xam-xam yi nee nañ sopp nañ ginnaaw yéene bu njëkk boobu nga xam ne matal na weer wi yépp waaye sopp nañ ci jullit bi guddi gu nekk mu yeesalaat yéene yeesalaat yéene googu nag ci guddi gu nekk du farata waaye luñ sopp la ci moom lu dul ngante dog ko ci biir weer wi mu ñàkk woor moo xam Euh, ku tukki woon wala ko amoon feebar walla jigéen gu ngant ngant dikkal ba am bis yu ñàkk a woor bu fas yéenee wooraat nag day yeesalaat yéene bi te boobaa yéene jooju farata doon ci moom waaye ki nga xam ne dafa yéene woon jiital weer wi yéene jooju du du sax yéene jooju nekkul yéene bu ñu nangu yéene fi muy tàmbalee mooy fi nga xamee ne seentu nañ weer wi ba gis ko ñi fas yéene woor suba foofu la yéene ji tàmbalee wala bu fekkee ne weer yu mat na fan weer comme niñ ko gisee fan yi incha allah euh, kon loolu mooy farata bu njëkk bi ba ñaareelu bi mooy al imsaaku mooy terewu téye sa bopp comme ni nga xamlee woon koor kon terewu googu ngay tare wala tare ngay tare sa bopp ci lépp loo xam ne nii mën naa yàqu koor gi muy lekk ak naan ak euh, jaxasoog jigéen sa yi ak yeneen yu ni demee jàpp gi ngay jàpp sa bopp ba doo dugg ci yooyu loolu farata ci ab jullit ci bu fekkee ne dafa woor waaye sunna yi nag mooy yi nga xam ne nag du du du farata waaye day mottali koor gi sopp nañ ci ab jullit bu fekkee ne woor na nay xëdd xëdd sunna suñu feddali la yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadis ne tasaxaru fa inna fi suxuri baraka day leen xëdd euh, ndax xat ndax kat xëdd yàlla da ca def barke ñu bari nag danañ koy xaw a sàggane wala ñu koy néewal waaye nañu xam ne loolu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunna su la xam naa danañ ci ñëwaat ci beneen jotaay sax gën koo euh, yaatal ci euh, ci at ak ak ci aju yëpp ak aman ga anam ga ak lépp rek incha allahu taala donte da ngay yeewu ci fajar gi guux guuxum ndox guux ndox wala nga jël jëfandikoo tuuti ci tàndarma loola xëdd la ëpp naa bañ a bañ a def waaye bokk na ci sunna yi koor tamit mooy gaaw a dog bu fekkee ne waxtu wa jot na am na ci ñoo xam ne nii dañuy xaw a xër ba bu jant bi sowee ñuy xaar bu mu lëndëm déedéet fi nga xamee ne fi la jant bi di sowee euh, foofal foofa la guddi gi di duggee nag moo tax su ma ati mu siyaama ilal layli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firee ko ni ida aqbalat shamsu min haahuna wa adbarat min haahuna faqad aftara saaimu boo xamee ne jant bi fenkee ne fii ba soowee fii foofa eh, aji woor ji dog na mooy waxtu dogam jot na waaye bokk na ci sunna koor tamit muy soccu soccu yàqul koor waaye sunna la sunna suñu feddali la dañoo sopp ci jullit bu wooree mooy socc ci waxtu wu mënti doon nag ci biir ci bëccëgu weeru koor yi ci suba gi ci ngoon gi ci lu jiitu dog waxtu wu nekk bokk na ci sunne yi tamit mooy jullit bi boo waree na jàng alxuraan ndax shahru ramadan alladi unzila fihi alquran weer wi kat ci lañuy wàccee alquran mooy weeru alxuraan waaye wàccewaat ko ci guddi goo xam ni mu ngi ci biir weer wi inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka ñu ngi wàccee alquran ci guddi gu barkeel di guddi googu di ñuy wax laylatul qadri te laylatul qadr yàlla ko dëxañ ci weer wii nii bu ko defee jullit bi nay góorgóorlu nay góorgóorlu ci jàng alquran kem te layal kàttanam waaye bokk na ci sunnay koor mu muy baril jëf yu baax yi lu mel ne saraxe ak dimbale way soxla yi way aajo yi leen dimbale ci lu ñu ndogoo ak euh, lépp loo xam ne seen yitte seen yitte la waaye di jokk mbokk seeti jullit bu bu tëdd boo xaw a tawat bari lu muy tuub di wax astaghfirullah wa atubu ilay di tuub di jéggulu boroomam loolu bokk na ci sunna yi waaye di taxawee guddi yi tamit di taxawee guddi yi mooy at tahajjud ñu demee ba ni ñëpp tëdd xaaj boo xaajoon guddi gi ñetti xaaj ñetteelu xaaj bu mujj boobu noonu jullit bi da cee war a lu jug taxaw def fa ay rakka loolu la ñuy a at tahajjud mooy xiyaamul layl salaatu tarawih salaatu tarawih mooy euh, jullig naafila gi ñuy def ci ginnaaw buñ jullee gee ba pare def ko mbooloo euh, ànd ci jàkkee imaam jiite ñu def fukki rakk ak ñett walla leneen loo xam ne nii euh, def nañ ko loolu tamit sunna la waaye tarawih bokkul ak tahajjud nit ki mën na di def tarawih di tahajjud bu ko defee moom dong baax na Euh, tarawih bi su ko defee moom dong baax na su ko defee ca mbooloo ma tamit ci jàkka ji ca la gënee waaye tahajjud moom nit ki dafay defal boppam ci euh, jàkka ja wala ci këram bokk na ci sunna yi nga xam ne feddaliku na ci weeru koor mooy umra ku ko man ku ko man wala ku ko yàlla man loo euh, nga def umra umra mooy nga dem ba makkatal mukarrama ak jaamu yàlla la gu gu def tawaaf daa ngi def day ànd ak ihram day ànd ak tawaaf wër kaaba ga ànd ak safa ak marwa ak ay ca aju yëpp ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na eh, benn umra ci weeru koor mu ngi tolloog aj boo xam ne nii jullit bi aj na ko ànd ak yonent bi xam ngeen ne yonent bi ko ànd ak moom aj moom aj googa eh, kenn nattablewul ne aj gu ñu nangu lay doon te aj gu ñu nangu eh, lenn lu dul fayam lu dul àjjana bokk na ci sunna yi nga xam ne euh, jullit bi war na cee góorgóorlu farlu ji ci weeru koor mooy jaamu yàlla ci guddi yi bu fekkente ne fukki fukki yu mujj yi ñëw na fukki guddi yu mujj yi mu gën cee yokk góor góorlu gën cee yokk ab taxawaay ah, waaye du yem ci moom boppam waaye nay fexe ba ak njabootam mu leen di soññ ak di leen di ñaax ñi ànd ak moom ci jaamu yàlla kooku kon daal lii mooy lenn ci li nga xam ne ay farata la ak ay sunna yoo xam ne ni baax na jaadu na ci jullit bi mu koy taxawee ak di ko sàmmwanteeg moom ci kor gi yëpp kon ñu ngi euh, taxawandi ci point bi ba incha allah suba ak jàmm ñu dikkaat ci beneen jataay aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daarakoki TV la chaîne au service du cinq